mënul sauver yaayam yaay sëgg rek sëgg sëgg na ba doqali càng dañ siggil suñu yaay ji la nation sénégalaise nañ ko siggil nañ ko siggil si suñu moroomu yaay maire yu ko yu ko ko wër Mali Burkina Égypte Tunisie Guinée ñu ko wër yëpp ñu ngi koy xool mu ngi toog rek nañ ko siggil ngir yàlla laa war a suuli nañ sauver nation bi loolu moo ci am importance ku ci nekk na nga am benn détermination ci sa xeex xam ni sa xeex xeex la avec xeex ko sans xeex ko loolu rek moo fi nekk donc encore une fois les on n'a pas encore perdu la guerre on peut perdre une bataille et ne pas perdre une guerre nañ gën a dajaloo ñi fi des booloo xeex lu monstre am na suñu soldat yoo xam ne nag jàpp nañ leen mais loolu daf mu metti nag ndeysaan Abdou Karim Gueye moom mooy kumba amul nday daal Abdou Karim Gueye daal moom nguur gi da koo jàpp def ko euh, euh, mburoog sokola kum kumba amul ndey dañ koy jàpp yóbbu tëj génne jàpp yóbbu tëj moom ak Cheikh Omar Diagne ñoom daal comme kumba amul ndey ñoom daal fu la neex ñi jàpp ñaar ñooñu daal non man dama leen di xool non am compassion am yërmande ci ñoom am yërmande ci ñoom billahi wallahi ñooñu daal ñooñu ñooñu daal ñoom ñooy ñeexu ñebbe daal ñoom ñooy ñeexu ñebbe taa bi daal ñoom daal ñooy kumba amul ndey ñoom dañu leen di jàpp rek di yóbbu di tëj di génne di tëj di génne di comme ay vulgaire voyou loolu dafa metti billaay damay toog di ko miseran ah. di ko misère ah. non sama xel ci lu nekk lay dem ko ma ne ñaar ñi ñoom ñoom ñoom def yàlla ay jàmbaar yi ñoom ñaar ñi Cheikh Omar ak ki nga xam ni mooy Abdou Karim Gueye ñoom lu ñu def ñoom daal dañ leen di jàpp par saison bandi sax kenn du leen tëyee noonu ñoom daal dañu leen di ñoom daal may ñu leen deux mois ci mbedd yi dañuy génn nit ñi jàppaat léegi te c'est facile nag c'est facile pour eux loolu waruñu mais xanaa nag ni gars yi di def Abdou Karim Gueye Cheikh Omar Diagne rek war na mun a tax nit di xeex mais ñooñu dañu am ay kër am njaboot am doom am ay jabar am mais mais ñooñu ñooñu daal lu leen neex lañ leen di def loolu c'est pas normal il faut sa battre il faut sa battre ngeen teg ko ci teg teg leen ko ci le 30 xam naa le 30 ngeen di xaar parce que fu nekk ni ku leen gé pour ñu génn loolu la problème la le 30 mais le 30 xanaa day jeex une bonne fois. lu ñu waxoon yëpp dañ ne woon bii passé day jeex le 30 xanaa dina jeex parce que le 30 ñoom dañuy jugé de le 30 moom dañuy jugé ñoom te le trent dañ ko bëgg a ne donc le 30 bii xanaa dinañ ko jeexal suñu yaay ji suñu nation sénégalaise bi mun a siggi loolu moo ci am solo man daal loolu laa leen di wax ngeen concentré wu ngeen xeex. man li ma war maa ngi koy def waxoon naa leen ko tamit bokk na ci lu Ousmane Sonko waxoon génnoon naa fi pourtant temps yële passé ci ginnaaw leen bàyyi leen discours guerrier ci internet bi bàyyi leen di sacrifier seen bopp bàyyi leen di wax loo xam ne boo leen demee jàkkaarloo ji gars yi doo leen am lu ngeen wax ñu leen di sacrifier soldaar yi ñun ci mbedd yi lañ leen soxla soxlawuñ leen ci kaso yi benn sox Omar Diagne ci mbedd mu danger bu garaaw la ci état bi benn Abdou Karim Gueye ci mbedd mi moo ñu gënal junni Abdou Karim Gueye ci kaso bi benn nit dof ki ci mbedd mi moo ñu gënal junni nit dof ki ci kaso bi ay soldats yu am importance lañ ci lutte bi donc ci mbedd mi lañ leen gën a soxlaa parce que ci biir jeel bi amul moom réduit au néant ku ci Macky Sall ci kaso bi mooy c'est fini dootoo waxati dootoo partage dootoo loo munati lan nga mënati donc fii lañ leen soxlaa yenn discours yi soxlawul it ñun ñu koy def ñun ñii ñoom ñu mënulul dara ñu xam fu ñu taxaw xam fu taxaw fu dëgër dëgër dëgër dëgër dëgër ñun mun nañ koo wax ñun mun nañ koo wax li ngeen ragal a wax wala bu te da ngeen ragal sax waru leen ko wax parce que fu ngeen nekk la bàyyi leen ñi nekk bitim réew di ko wax boo leen demee amerique suñ sëriñ bu màgg bi Baye Mbaye MC MC Niass mi ngi koy wax mi ngi wax lu kenn sañut wax Sénégal mais noonu la wala benn Ousmane euh, Tunkara mi ngi koy wax donc li ngeen war a wax discours guerrier yi loolu du da ngeen ragal mais il faut systématiquement affaire xeex bi stratégie la doo sacrifier sa bopp mënoo nekk fa nga nekk bëgg a def yenn yi yow non ñi ko war a wax ñi ngi leen am na ñi ñi ngi toog fii di leen saaga di leen wax lu ñu neex te mënu lu ñu tarafatal ay nii parce que fii ay dëkku droit la ay ay dëkku droit fii fii ay dëkku nit la du mala fii koo fi jàpp tëral rendi dee ci kaso bi koo fi tiire ay bal nii xoolal dee ci kaso bi comme lu ñu def daa mbóoj koo fi menacé dee ci kaso bi donc fii am nañ jàmm fii donc ñun fii garaawul loo bëgg a wax lu wóor ne boo bu nga waxee Sénégal jàpp la ngeen jox ko ñu nekk fii ñu wax ko affaire bi jàll mënaluñ ñu fukki dërëm salaamaaleykum mënaluñ ñu ko fii c'est sûr xeex ba ba mu tàmbalee ba léegi waxoon naa leen ko depuis kañ la xanaa gars dañuy fàtte man mii ñaata menace laa fi jot te benn wax laa leen waxoon ne leen bàyyu Macky Sall sax mënalu ma dara te bu ma koy wax def na un an ba suñ doon yàlla tey maa ngi nii di wax bàyyu Macky Sall sax mënulu ma dara mais ba ñaata menace laa jot fii waa après ñaata menace dañ koy jëli dañ koy kii dañ koy na man tey maa leen fen loo parce que ñoom dañoo jàppoon ni waaw état dafa am pouvoir état ma da di fen état du am pouvoir ci man yéen seen état Sénégal du am pouvoir ci man tant que man ñëwuma jox ko sama bopp du am pouvoir ci man maa ko doole ne Sénégal xool leen sama tuutiwaay bii seen état bii ak nu mu day maa ko doole munul ci man tarfatal ay ni te amul lu mu déggul ci sama gémmiñ gi ba léegi maa ngi toog fu ma toog di ko ci teg donc ñooñu ragaluma leen parce que xam naa fi ma taxaw xam naa li ma yàlla may xam naa pouvoir yi ma yàlla defal xam naa possibilité yi ma am moo tax ma koy saisir di wax li ma saf te tiituma ci kenn ragaluma ci kenn ña wax un pour cent ci li ma wax ñoom ñëpp a ngi ci kaso bi un pour cent kenn waxagul sa li ma wax kenn waxagu ko donc encore une fois gars yi nekk leen ci seen xeex maa ngi leen di sant di leen gërëm xeex bi yéen ñëpp da ngeen ma cee fekk ñépp da ma cee fekk xeex bi màgget laa ci du ma ci xale dangeen ma cee fekk di leen sant nag di leen gërëm xeex bi bu amee ku koy bàyyi yéen na koy bàyyi mais du man ngeen ñëw ñu xeex ngeen dem ma xeex xeex bi dangeen ma cee fekk te dangeen ma ciy bàyyi seen morom laa ko àndaloon di xeex ñu bëri bàyyi maa ngi fi màgget laa ci da ngeen di ñëw xeex kook man ñu dem boo leen ko xeexul dangeen toog man danaa dem kenn du ma kenn mënu ma génne ci xeex bi kenn da ngeen ci da ngeen yéenay dem mais man du ma dem yéenay wàcc wagon bi mais man pour man locomotive bi laa bopp bi laa du ma ko bàyyi kenn du ma arrêté ci xeex bi ku ñëw ma dem ku ñëw ma dem du ay xeexu populisme du ay xeexu wut ay nit du ay xeexu followers du ay xeexu j'aime du ay xeexu janor xeex la xeex du ay xeexu wutum fans xeex la xeex loolu yow mën xeex la xeex xeex la combat mortel la du du làmb du làmb ay samay supporter fii supporter amu fi on cherche pas des supporters nekkuñu ci làmb newuñ ci ay Balla Gaye Modou Lo combat mortel lañ nekk pour sauver une nation combat pour dog buumu jàmm ñu ko fi xeex yépp mënuñu wutuñu followers ñu wutuñu supporters on n'est pas intéressé par ce genre de supporters ou de followers ces supporters là ne doivent même pas être des supporters ils doivent se battre xeex bi moo warul am supporter xeex bi moo amul followers na ngay xeexee noonu la ñeneen ñi di xeexee combat final la donc bu ñu nekk ci kaw nan dañuy xool bay doon ay followers wàcc leen leen jox leen jaas yi ak paaka yi ne leen xeex leen da ngeen war a xeex li combat final la soxlawul followers soxlawul gem soxlawul janoor combat la fight la last line of defense dernière ligne de défense la sinon gars yi taal mbaal yi xeex bi xeex boobu la waruñu dara et pourtant c'est facile man tey jii bu ma neexoon dama ko doon def dama ko doon def ah. mais enjeu yi ma calculer moo tax parce que man digoon naa leen ko dama leen waxoon mois de mars ma ñëw wax leen lépp lu xewoon ci li ma doon bëgg la ma doon def la ma doon def te ñu bëri comprendre nañ ko waxoon naa leen ko fii parce que man kenn doonul coono ci man man maay sama destin wu bopp man maa bëggu di libre ak sama conscience lu ma def rek sama conscience bu tranquille rek man naa gis gisuguma lu ma teree nelaw boobu ba léegi maa ngi nelaw maa ngi sant yàlla etc., etc. Quand j'ai voulu envoyer benn émissaire mu dem ci Ousmane Sonko ba mu demee ci Ousmane Sonko wax na ko pourtant war naa ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko nag non on a compris nangam nangam nangam ñu waxtaan seen waxtaan te pourtant waxuma ko kenn quand j'avais sama stratégie def li may def ba pare jël naa loolu am ab kilifa bu nekk Sénégal bu xam Ousmane Sonko jege di ko jege jox naa ko sama kàddu dem na ba ci moom wax naa moom ñoom ñaar waxtaan nañ lépp ma teg ko sama stratégie li ma doon jéem a def lu ma buggoon def ak li ma def lépp ma expliqué ko mu dégg ko ci noppam moom ñu ñu jàll ci affaire boobu moo tax mu leen wax ne bàyyi leen détail si leen ci combat bi te ngeen bàyyi di seen biir ngeen di yuuxoo ko xuloo ko non non non non non gars yi du seen biir sax ñenn ñi xanaa xamoo patriote yi ñoom ñoo gën a subir waa Pastef ñoo gën a subir manipulation. xanaa xamoo bu dee xeetu manipulation li APR di gagné ak Benno Bokk Yaakaar di gagné ci waa Pastef yi waa Pastef yi amuñu ko ci waa waa APR. waa Benno Bokk Yaakaar ñoo gën a gagné ci terrain manipulation ñoom dañuy ñëw mel nii. ay pacifiens mel ni ay patriotes infiltré ñële jaxase seen rang yi reyante ñoom rocceeku ndànk te waa Pastef amuñu possibilité boobu pour def ko ci camp wu mais APR dañu leen di gagné waa Benno dañuy gagné ci terrain wu manipulation lu Benno di gagné APR du ko gagné lu APR ak benn lu Benno bokk yaakaar di gagné waa Pastef duñ ko gagné. waa APR waa benn bokk ni ñuy manipuler waa waa Pastef da ngay gis kenn ku jóge APR jóge fa la ñu sol tiset Ousmane Sonko maanaam photo Ousmane Sonko la yoon naa ñëw toog di foowee sénégalais non duñ ko baal non kan moo la tooñ bay bay baalu non duñ ko baal beneen dof yi bokk Pastef ñu non non nañ ko baal duñ ko baal nañ ko baal mu ngi leen di manipuler bokk fa sax gëmu leen sax manipuler mi ngi jéem a di leen gëmloo ni non ki nañ ko weddi nu mu ko kenn déglooti non il n'est pas crédible fekk xoolal kooku bokk fa donc ñoom nu ñuy manipuler waa waa Pastef ñu waa bennoo nu ñuy manipuler waa Pastef Pastef ñoom manipuler wuñ mënuñu ko manipuler waa bennoo moo tax terrain manipulation bi ñoom ñoo ci gën a gañe ñu leen di fooyee moo tax bu coow li ne wër am na yu bëri dama ko dama ko photo denc ko bu coow li ne wër ñoom ils ñu nax waa waa waa waa Pastef di am lu ñu leen gëmloo ñu nax waa Pastef am lu leen gëmloo ils <laughs> c'est normal parce que nit ki moom boo yeewul boo yeewul boo sigiwul xool doo comprendre xeex wi xeexu terrain la mais xeex bi xeexu manipulation la il faut manipuler il faut manipuler le maximum possible xeex bi xeexu stratégie la déggoo lu ma leen wax j'avais décidé je l'avais fait le 29 janvier j'ai pas oublié le jour ce combat de manipulation là que j'avais fait le 29 janvier j'avais décidé le 29 mars de faire un live spécial de maanaam leeral lépp lu fi xewoon de live spécial leeral lépp lu fi xewoon mais j'avais après dama gis ni le 29 mars est-ce que c'est le moment pour def ko parce que le 30 la ñu war a juger Ousmane Sonko est-ce que loolu du mel ni Euh, genre diversion sama xel ci loolu la nekk mais j'avais décidé la vingt neuf mars parce que le vingt neuf janvier laa ko laa def li ma def noonu le vingt neuf mars laa décidé woon leeral ko le vingt cinq ma génn affaire yi ci weeru koor ñëpp toog ñëpp ñuy déglu ma tegal leen benn par benn live de de vérité boo xam ne du yem ci ay wax kese live de vérité bu ñu leen di taalal ay audio mi ngi fii mais waxuma nag danaa ko bàyyi xëy na mun na ma defal leen mun na ma defal leen ko une bonne fois après ma libéré leen pour ñenn ñi ñuy fooyee ba léegi waxuma ñenn ñi ñëpp ñëpp de am ñu ñuy manipuler ba léegi mii fii lépp ma tegal leen ngeen déglu ma expliquer leen lan moo indi lii yëpp parce que dafa am lu ko waral. moo laa mënul xeex xeex xeex xeex xëy rek def lu ko neex <laughs> pour yàq il gagne quoi ak li ma fi liggéey lépp lépp lépp liggéey ba ñu taal kër liggéey ba ñu kii liggéey ba ñuy chassé liggéey ba naan tey ñu nang mu ñëw foowee ko nii rek rek après dem taxawee nii rek quoi <laughs> il faut se demander mais le gars lan la bugg a def réellement c'est toute une histoire heureusement il y a des audios qui sont là depuis le début de l'histoire qu'est-ce qui a suscité li ma def ak lan lañ ci gagné ak lan fan la fan la yóbbu combat bi ak et cetera et cetera parce que tout ça c'est un jeu mais ñoom gis nga bu ma defee loolu ba pare dama suivre lu bëri mais presque quatre-vingt pour cent ci waa ñi ñu woowee waa Pastef moom à part leader li leader yi moom kenn waxu ci leader yi moom ils ont été très très très intelligents et patients les leaders moo tax je le voue un très grand respect les leaders de de de de Pastef c'est des têtes pensantes li ma def kenn ci ñoom publié wul kenn ci ñoom waxu ci lu ñaaw kenn ci ñoom ñëpp ne tekk tekk parce que seen intelligence may na leen ni waa ji ak lim fi def lépp ak lim fi xeex ak lim mais est que kii dana ñëw rek bazarder li mu yor nii affaire non non ils ont été calmes di déglu di xool waa affaire yi daw tak tak tak tak tak analyser <laughs> ñoom laa doon gën a suivre waa Pastef yi parce que Pastef yi émotion rek lañ doon demee ci histoire boobu émotion ñoom ñoom ñëpp quatre-vingt pour cent yi daanu ci ca mbalit ma quatre pour cent yi dañoo daanu ca mbalit ma réflexion zéro ñoom ñëpp émotion mais moo tax ñoom suivre ma leen dama def lu may def di suivre waa APR coow li lépp maa koy suivre ñu ne une fuite au parquet et à l'origine de la sorti de Mollah Sonko sait que sa vidéo existe Maître Bamba Cissé a réussi à regarder certains éléments du parquet Mola a été commandité de préparer l'opinion sekk nañ ko waale violé wu ko <laughs> ñoom ñu taxaw ñoom ñëpp ñëw commenté waa APR ñëwaat suñu yoon nekku si montage photo yomb na waaye montage vidéo yombul li ma si mën a wax mooy préparer opinion bi taxul vidéo bi bañ a génn te procès bi rek la gën la rek lay gën a vidéo bi neexul montage procès bi jour procès la ñu xam ne vidéo bi nekkul montage donc ñoom ci saase ña ngay tiit waa APR yi ma leen di suivre ñi ngi wax ah kon moo laa ma ngay jéem nangam est-ce que amul lu muy préparé te ba ñu ñëwee même chose la ñu wax commentaire yaa ngi nii suñu yoon nekkul ci kii ne tu as compris dafa bëgg a yàq xel yi moo tax mu def li lii yëpp dof la jàppee sénégalais waa ji donc gis nga la réaction des éléments de APR est différente de la réaction des pastefiens yi nga xam ne émotion la ñuy demee kenn ku génn ci ñoom di infiltrer parti bële di jaxase xel yi di def au lieu ñoom ñu nand ne ah kii am na lu muy jëm non fa lañ nekk non voilà kii dañ ko financé dañ ko jox nii oh, oh, oh. ni ñu xeex Sonko moo leen boole ci xeex bëri na pacifiens yi Sonko leen dugal ci xeex day xamuñu woon sax ñu xeexee xamuñu woon sax xeex xamuñu musuñu daj xeex donc au moins ñoom ña ngay toog di lan moo indi lu lu indi moo laa ci lii ñoom ña koy xool non Sonko ak Mollah ñoo yem kii ne pourtant Bah Diakhaté de Bah Diakhaté de Baatu Dëgg avait dit qu'il fait semblant d'attaquer Ousmane Sonko pour ensuite sortir des photos montées et se rétracter et dire qu'il a été trompé. Tout ça pour préparer les pacifiens à une éventuelle sortie de vidéo ou quoi que ce soit. donc gis nga ñoom maa ngi leen doon topp ñoom parce que ñoom ñoo gën jege l'information parce ñu ngi ci biir système bi donc loolu lépp c'était un jeu mais incha allah bon il se peut mais le vingt neuf bii laa ko bëggoon def wax leen lu waral coow li lan moo ko suscité quel jour laa jot benn information kañ laa ko décidé lu tax ma décidé ko lan moo neen objectif bi et cetera et cetera mais heureusement coow loolu sax nekkatu fi affaire Adji Sarr Ousmane Sonko coow loolu suulu na heureusement alhamdulilah donc euh, c'est à moi de voir si je vais le faire ou non de toute façon même bu ma ko bàyyee man saama me coûte rien parce que li fi am am na fi mais maa ngi maa ngi je fais ma vie ah kenn mënu ma xañ sama vie kenn munuma xañ li ma bëgg a def kenn mënu xañ li ma bëgg a wax kenn mënu ma xañ maa ngi ci sama combat quoi maa ngi ci combat bi mu mus nekk combat contre le système maa ngi ci donc mun naa ko bañ sax def mais par devoir de vérité j'avais dit aux Sénégalais te li ma wax dama koy def j'avais dit au Sénégalais yi waxoon naa leen ku ma ne kaay tey suba dinaa la rey jàppal julli say ñaari rakk te xam dinaa fa ñëw man noonu laa mel je suis un de conviction bu ma ne leen tey di dinaa la def lii dinaa la def loolu donc man maa waxoon mois de mars je vais éclaircir la lanterne tout ce qui s'est passé te mun naa gëmm di ko wax di nalaw di ko wax di wax jour heure fu ma toog appel bi teg ojo yaa ngi fii fees fii del del del del del yi ñu ngi ñu ngi fees fii del ojo yi teg ngeen déglu boo leen déglu di ngeen dégg benn ojo rek bu ma ko tegee rek ngeen di laay ah, kon lii la ah d'accord benn ojo kese ak maa gën mun a jeexal wax ji ak maa wax ji sax jeex na kenn waxatu ko mais ak maa mun a c'est il faut may leeralal leen ne non c'est vrai nag mérité ngeen ko nag sincèrement sénégalais yi mérité nañ parce que je parle la nation sénégalais yi mérité nañ ma leeralal leen vraiment ma leeralal leen loolu moom mérité nañ ko moom c'est normal mérité ngeen ko et je vais le faire incha allah on verra d'ici le 29 si tout se passe bien par rapport à la situation politique je vais faire un live waaw pour l'honneur de la nation et de la vérité ma tagal leen lépp ngeen gis c'est pas diabolique ah c'est pas diabolique euh, déglu loo jaar wax leen tur bi wax leen sant wax leen lépp x moo tel jour telle heure lii la ma wax ngeen déglu parce que lépp laa enregistré ngeen déglu enregistrement yi ba mu waxee lii ak lii ak toog naa temps de jour xalaat nan laa mun a def pour euh, indi solution ci lim ma wax sama xel lii la ma jox ma def lii ba ma paree ci loolu après ma def lii lépp ma expliquer leen ko parce que da ko war a xam tamit ah c'est normal ah, pour man nit nit waroo ko nax wala nit waroo jouer ci xelam lu yàgg nit waroo nangam il faut nga libere jaa bi ñu xam ku ci nekk jàpp li mu jàpp wala ku ci nekk juger li mu war a juger et puis la vie continue au moins on saura que un jour Dieu Mollah a fait ça parce qu'il y avait ça il voulait faire ça pour et cetera et cetera donc euh, je pense qu'on va le faire on va le faire je n'en suis pas très très très sûr mais il se peut le 29 incha allah à 20 heures euh, GMT dañuy nekk ci weeru koor 20 incha allah ñu ñëw nag defal leen la spécial live surtout ce qui s'est passé le 29 janvier incha allah ak des avec des photos avec des des audios avec ngeen déglu lépp après vous allez comprendre l'histoire après peut-être ça peut susciter encore yeneen wax ku ci nekk nga nga jugé ko ni nga ko bëggee waaye daal lenn laa leen wax mooy vraiment. Euh, l'idée ne mais pas yi amul benn idée depuis bu may xeex ba léegi bu ñëw ci sama xel bii pour yàqal Ousmane Sonko wala pour teg ko coono wala pour subir loo ko injustice non dundaguma ko nag bés ma ko dundee mun naa ko wax mais depuis ba may existe ba léegi amagul benn esprit négatif wala vent négatif bu ñëwagum ci sama xel pour ma jéem a yàq Ousmane Sonko wala ma jéem ko neutraliser wala ma jéem ko teg loolu wala teg ko coono wala jéem ko yàqal loolu esprit boobu ñëwagul ci man waaw bu ñëwee bu ñëwoon ci man tamit je serai dama koy assumer ne waaw mais yàlla defagul loolu waaw musuma am idée yàqal ko musuma am idée tiiñal ko musuma am idée saltel ko idée yu ma musa am yëpp mooy sauvé ko <laughs> Ousmane Sonko ba yàlla bu taxawoon idée yu ma musa am ci Ousmane Sonko mooy sauvé le sauvé le sortir des prénombres wala ànd ak moom xeex loolu daal la yàlla def cofeel googu la yàlla def diggante man ak Ousmane Sonko waaw loolu cofeel la du maa ko choisir yàlla moo ko def yàlla moo jël sama xol ubbi ko def ci Ousmane Sonko ma bëgg ko te yàlla tax waxuma ay nit de ma bëgg ko te yàlla tax jàpp ko te yàlla tax am amour ci moom am yërmande lool ci moom tamit di ko xool nuñ koy teg mu may metti sama xol di naqari xam nga du ma am envie du ma am sax envi lekk may toog man kese di saaga man kese mel ni ku dof des fois ma mer sax dóor sama frigo bi bum cop waaye gars yi génn di wax ak sama bopp ndax mer <laughs> loolu moom moom rek ko am sincèrement xeexal nañ fi xeex nañ fi ba Abdoulaye Wade di jóge fi te pourtant benn euh, politicien musul mel noonu si sama xol loolu nag yàlla moo ko def cofeel googu yàlla moo ko def ci xolu jaam yi man de noon la ma na mel ci man noonu la mel ci man boo koy teg ay coono wala dama seetaan des fois du am sax envie xool ay xew-xew day am duma am sax envie xool wallahi la azim du ma sax am parce que bugguma di ko gis ñu koy teg coono bëggal googu am ci moom bugguma di ko gis muy sibiir des fois lu may seetaan indi feere la comme bii passé bërki dem bu muy def live seetaanuma ko en direct ba ma ñëwee gis ñu def affiche bi gars yi teg ay ñaani bañ naa yooyu ci laa génne parce que xam naa ne mi ngi ci hôpital ba pour def di ko xool sax dafa may metti quoi parce que man xam lan moo metti ñuy teg nit injustice te mënuma ko régler affaire bi dafa may metti dafa may metti ci kanamu yàlla parce que damay damay am esprit suicidaire quoi xar ma dem teg nday bomb exploser waaye nan ki koy teg loolu daf may metti man man kon man cofeel googu laa am ci waa ji te nëbbuma ko fenn fu mu nekk fu mu nekkul dama koy défendre fu mu nekk ak fu mu nekkul dama koy xeexal fu mu nekk parce que vraiment injustice rek la si biir coono lay si biir tooñ tooñeel bu fekkee ni dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg rek dañ koy tooñ dañ koy fenal dañ koy sosal dañ koy tooñ dañ koy jaay doole ma kooku nit bu baax munu koo xeex nit bu baax munu ko xeex dëgg-dëgg nit bu bon rek ku ànd ak seytaane rek moo mun a xeex usman Sonko waxuma ko pour euh, lu neex kenn nitu seytaane rek moo mun a xeex Ousmane Sonko wallahi la benn affaire la bëgg jiite réew moo ko jural lii la ambition kese jiite réew moo ko jural lii lépp luñ ko teg rek di ko teg ba teg ko ay jegeñaaleem wala ku ko jege wala docteur bu ko faj sax wala ku ko bind ordonnance sax ñu topp ko eh, xeetu injustice boobu ku xeex Ousmane Sonko doo nit ku baax man maa ko wax ma ne kuy xeex Ousmane Sonko doo nit ku baax kuy xeex Ousmane Sonko doo nitu ajana kuy xeex Ousmane Sonko demal nga defaru ji seytaane fes na ci yow dell ndax defu fi lu war a tax ñu koy teg lii ñu ko teg nit bu nekk am nga mun nga am ambition jiite réew et après loolu war na tax ñu jàppale di la jaay doole di la toroxal mais rafetul sa waa ji li muy def Macky Sall li muy def Ousmane Sonko mais Abdoulaye Wade defu ko ko Abdoulaye Wade defu ko ko ñu ko xeetu tooñeel la xeetu nooteel la moo tax la lu may woon a wax daal mooy sénégalais nekk leen ci combat bi nekk leen ci seen combat gëm leen ko farlu leen ci ànd ceeg pas-pas voilà ànd leen ceeg pas-pas encore une fois lu ma waxoon démb mooy sama waxu tey nee naa leen nekkuma fi naan ay baal leen mag tooñuma leen